mu mel ni Weuz Jambar mu mel ni Weuz Jambar tey jii ak naa la Baye Fall Weuz pare na bu yàgg Weuz pare na bu yàgg naa la Baye Fall lañ cay débat débam lii neexuma ci lamb lii neexuma ci lamb bëgguma ci lii ci lamb xale du topp xale xale du topp xale xale du topp xale Junior waaye bëgg ma soog ko ci lamb nit ki ba nga teelee ñëw noonu ñoom ngeer a gën a ñëw ñoom ngeer agsi nañ ñoom ngeer jëli waaye gis naa fi ñoom gis naa ko waaw mu mel nii naa la naa la baa faal ak tere CNG dafa tere lii tere lii CNG dafa tere tere lii te temps bii nii CNG du la ko may waaw waaw nii soo bonee say waaw say mbokk yu dugg coono fu mu nekk nii gis nga fi mu nekk lii neexuma naan la Baye Fall naan la yàgg na ci yëf yi waaw fi mu nekk gis nga fi mu nekk xoola ba léegi pareegul fi mu nekk pareegul fi mu nekk ah tey voilà waaw te moom lii woon du woon problème moom danaan teel a xaw tey lan la nag. xale du yóbbu xale. non waaw wallaay wallaay non xale du tabaski day day ñaan lakku xale du tabaski day ñaan lakku waaw kon nag ñoom fi mu nekk gis nga lu ci nekk da ngay jël mag mag mu mag mu jaar ci lëndëm ba dellu si moo mën a xam pàkk pàkk ya fa mu nekk waaye soo jëlee xale danaa la jox ma tor su ma. waaye su lamb wa loolu moo jaadu fu mu nekk day am ay rëq-rëq yoo xam ne tey amoo critique c'est pas méchant nit ki bu le critiquer après da ngay def sa autocritique xool fu mu nekk li tax ñu wax ma lii bu ma ci sama njegenaay calculer liñ ma wax lan moo ci possible ak lan moo ci possible. mel ni Weuz Jambaar na moytu Weuz Jambaar na moytu bu mu gis naa la ci leen lemam ji muy ne ba tax mu jàpp ni da ngaa war a taxañ daan ko déedéet xam nga fi mu nekk nii euh, naan la Weuz Jambaar xam parce que Nalla am na fu mu jaar jaaree te te Yuus jàmbaar fi mu nekk xam na kuy Nalla Nalla kay leen rek ma def problème tey mooy temps bi yëpp yëpp rek mu diir man foofu la rek mooy mais bi muy doog a ñëw teel a ñëw confiance booboo ngi continuer waaye nag mën naam mu nax ma ci biir làmb. Père Baba Père Baba xale du yóbbu xale. xale du xale. du jiitu xale. xale waaw mosuma dégg ñu ne sareet bi day moo jiitu fas yu topp ci gannaaw ah gisaguma ko ah gisaguma ko de mën na am ku fekkee nit gis na ko mu ngi wax kàbbar nañ diggante yoos jàmbaar ak ki nga xam ne nan laa ngi kabar ki nga xam ne mooy yoos nan la moo boot case des tout ngemboo ngemb lu xonq li takk lu weex ci gannaaw yoos jàmbaar takk li nga xam ne ngemb lu vert boot fi nga xam ne mooy yoonu man waaw mu mel ni tey ma wax rek tey boo seetloo ki nga xam moo war a toogal naa la 16 euh, amul maanaam euh, amul licence su entraîneur ah, moo waral dañ koy jëlee foofu mu taxaw te xalaatoon naa loolu ci làmb ji. waaw ndaxte xaw ma woon ni nii sax lay demee. gis nga ni ñu def chaise ba nuñ ko dëppee. c'est vilain dafa ñaaw tey. am na ci làmb Abou Diassé ak Giro Seras démb. démb làmb Abou Diassé Giro Seras Dakar. am na fa yees ñooy sifflé kenn seen diggante ci diggante naan la Baye Fall ak yees yaa safur la ak ki nga xam ne mooy ñoos jàmbaar ñoom ñaar ñoos jàmbaar naan la Baye Fall ña ngay léewante ñoom ñaar léew too naan la Baye Fall mu ngi koy xool ci bët waaye ñoos ñoos jàmbaar ma ngay ñëw naan la Baye Fall ñoom ñaar fu mu nekk naan la décroché waaye bàyyi àggul ñoos mu ngi koy top naan la Baye Fall nan lay def. fu mu nekk la ma waxoon fu mu nekk naan la Baye Fall waaw ku gën a bandi ñàkk combat bi waaye naan la fi mu nekk mu koy xool ci bët yoos a ngi foog ne bëgg a dox ci kawam waaye naan laa ngi nangu mu mel ni ku ko ragal mel na ku koy domine waaye dafa am lu muy waaj naan yoos déclenché na benn waaye déclenché waat na beneen déclenché na ñaar d'accord uma loolu naan la Baye Fall d'accord uma naan la naan la Baye Fall d'accord uma naan la d'accord uma naan la naan la d'accord uma naan la Baye Fall déedéet d' accord uma noonu xeex bi ak Yoos jàmbaar waaw waaw noonu laa d' accord naan la loolu laa d' accord naan la loolu laa d' accord sama reporter mu mel ni Nala mu mel ni Nala ngay koy lool mu mel ni Nala Nala ñàkk na combat bi doole waxul doole waxul dëgg doole waxul dëgg doole waxul dëgg doole waxul dëgg doole waxul dëgg doole waxul dëgg doole waxul dëgg loolu doole waxul dëgg dafa wéeru ci kawam doole waxul dëgg doole waxul dëgg ñu dem jëli naa la ñu dem naa la lamb nii la lamb nii la lamb nii la lamb nii la daa ko lamb nii la. nee naa la woon d' ma ci d' accord ma ci kuu yi. ñëw bee baaxul d' accord ma la ci commencement bi waaye dafa am benn wax bu ma dégg ci benn waay ju baax wax ko ne xale du ànd ak xale xale du andi xale la preuve en est que xoolal chaise bi ñu dëpp nee naa la signe bu bon la baaxul kan moo koy coacher mooy coacher boppam. waaw mu mel ni tey jii li ngeen wax rek laa lay wax boo résumé lamb ji nga xool code bi nan la def wa jàmbaar ku ko mës a def da génnoo ca. tay mu melni li lii mu taxawee nii tey Weuze ko seuf poids bi satti ko dolé daw bëré ci kaw bërem def ko lim ko bëgg def na la dan duma na la dan na la dan bëré tay bo xolé lamb ji na la xeexul bërewul mu melni tay so soo seetloo fi mi lonk fi mi lonk taxabal bi li kum ko mësa def da ngay perte kum ko mësa def da ngay perte mais dal déséquilibré parce que attanul poids bi mu loké waw lamb ni la lamb ni la soo juumee rek daanu waaw ku daanu oh. waaw noonu la lamb noon la bëre na bëre naaw waaye nag comme li wax rek fu mu nekk nii luy su amee jàngat la war jàngat lay doon ñu waxtaan ci jàngat lay doon nit ñi dañ ci waxtaan hmm. mais dafa am leen loo xam ne tey eh, écrit bi war na cee waxtaan hmm. si ma gën a ñën a waxtaan hmm. man course dafa am solo course dafa am solo ci chaise bi am na ci solo lool parce que chaise bi ma gis ñu dëpp ko nii Lamine man neexuma ci combat neexuma parce que Lamine technicien nga mbër nga tey chaise bee moo war a ne technicien tey toogu fi parce que ki war a toog amul licence boo xam ne war na ko te c'est très important nit ñi dem jàngi ku nekk naan may may entraîné boo ñëwee ba fii licence këyit la ñuy xaar. waa Baba xam nga xam nga xam nga Baba Thiès xale yi mën nañoo bëre mais écrit daa am lu ñu